kilifa gi nuyu naa la. ñu ngi leen di fay. maa ngi sant bu baax a baax. ginnaaw ba ñu la jaalee ki nga xamante ni moo di Mbissane nekkoon artiste comédien ngeen bokkoon aar bi mu bëggoon xam rek sa relation ak moom naka la demee woon. waaw relation kilifa rek la woon baay ak doom la woon daanaka maguma lu ma mën a jure mais vraiment baay ak doom ndax relation boobu tout sama loolu defe naa ne sama relation ak moom ñi mu doon àndal ñoom Tafa Ngom ñoom Ibou Fall xam nañ sama relation ak Mbissane vraiment muy sama mag. di suma pap di suma xa doon suma xarit yàlla na ko yàlla yërëm xarit ko àjjanay firdaws vraiment. yan témoignage nga ñu mën a jox ci imam moom. waaw mooy ñi ñëpp témoin rek nit koo xam ne alxuraan mooy dëkk mooy xaritam ba pare vraiment këru diine yëpp ay këram la ñu woon moom daal l'islam la doon dund lool daal lañ mën a témoin ci moom parce que su ngeen nekkee tournage sax moom affaire vieux yëpp lool la la ciy wax yàlla yonent bi wasile yu baax yi kese. waaw parce que fekk demoo fi mu dem doo xam ne kii tarixa bi la bokk ndeysaan mas nañ ñu fekk kër Baaba lamin mais gis nga jàpp gim ñu dañ jàppoon benn mais dafa mel ne dañ jàppoon mille ndax wasila relation bi mu amoon ak Baaba Lamine ak ni mu nekkee woon taalibe Baaba Lamine pare bëggoon ko gëm ko gis ñu fa vraiment keroog gis nañ ci fierté boo xam ne bi ci moom te daawuñu toog xanaa li mu feebar parce que man bi ma ko xaw ma lan la war a dëgg yàlla toog naa avant appel bi laa gëjoon dégg ndax moom appel moo fa daan njëkk wax dëgg yàlla chaque jour ndax sama digganteeg moom mais bi ma ko dégguloo te affaire xawoon na ma jaaxal ma ne ah peut-être comme gars yi dañ ne woon day dem àggale tournage am euh, Casamance xam naa looloo taxoon dégguma ko quoi loolu la mais boobu lañ mujjee déggante quoi franchement muy ku baax nitu yàlla. Euh, liñ ko ñaanal fii daal yàlla na ko fekk yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam daal lañ koy ñaanal vraiment. tey naka ngeen nar a li nga xamante ni moo di tournage yi ndax ku ma déggee ci say biiri wax imam bokk na ci koo xamante ne ni daf doon dool seen xol ci yàlla di leen conseiller te bu euh, heure julli jotee tamit mu jiite leen ngeen dem ci julli ji. Mhm. waaw parce que heureusement dañoo jox. fekkoon ne dañoo tax rek ñu xam mais dañoo jox yàlla am na lu mu def suñu dënn ci alxuraan tuuti ba am na luñ ci mën a gérer mais kan mooy remplacer imam fi mu taxawoon ñun loolooy suñu problème man loolooy suma question mooy posé kan moo war a remplacer duñ ne artistes yi jànguñu artistes yi jàng nañ alxuraan ba kii mais après relation bi imam amoon ak artistes yi kan moo koy remplacer loolu rek laay posé question boobu te yal nañu yàlla wuutal lu mel noonu mënuñu am ku gën imam mënuñu ko am mais yal nañu yàlla wuutal ku mel ni imam wala ku xaw a jege imam wax vraiment gis nañ ne wàcce kaamil fa xoolal bu bas jaxate fajar la ma woo jàllo euh, Baye Bass fan la këram si kii bi si police parcelle bi. ma ne ko imaam lii teel na de mu ne ma dañoo war a wàcce kaamil te dañ ko war a gérer te wallaahi ma tegtal ko bu mu àggee tamit wallaahi azim mi ñu toogee war a wax keroog wax na fa ay wax yoo xam ne maa wax yu daw yaram macha allah vraiment te ndeysaan duñ ji duñu fekkante du ñu jiitante sax lu mot at. kon lii la yàlla moon imaam dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjanay firdaws yàlla ñu yàlla wuutal lu jege imaam. vraiment ndax dañu imaam dafa bokkoon si vraiment. ñu ngi bu baax a baax. yéen ñu leen koy jaale sur internet yëpp lañ koy jaale di ko jaale Sénégal parce que imaamu ñëpp la tey nag am naa loo xam ne xaw na maa naqari tuuti ci si euh, euh, presse bi parce que imaam génn imaam àdduna imaam amul artiste bu ko fi ëpp production ci àdduna bi Sénégal. xaw ma nit ñi xam nañ ko wala amuñu mais artiste bu ëpp production fii Sénégal amul déggoo ko ci benn rajo wala benn télé. parce que tey journal de la culture man dama doon xaar ñu wax ci dese Imam Bissane te naa ko wax Ndeye Diom incha allah naa ko woo téléphone naa ko wax incha allah rabbi vraiment ngeen baal ma nag ci wax yi. kilifa gi nuyu naa la. fay nañ la. ginnaaw ba ma la jaalee ki nga xamante ni moo di Père Bissane nekkoon artiste comédien bëggoon ngay wax ma rek seen relation yéen ñaar naka la demee woon. waaw Imam Bissane de relation bi mu am man moom la am ak artiste yëpp muy relation bu baax bu te dëgg mooy njëkk te muy mujj essentiel li ma xam daal mooy eh, amoon na fi solo lool lool lool mais nag yàlla lu mu def looloo gën ñun suñu gis-gis ak suñu bëgg-bëgg rek la ñuy wax mun nañoo bëgg loo xam ne tamit eh, mën ngoon teg li nga xam ne moom moo war a mun a nekk donc euh, mbi soo déggee man la nekkam fii am na solo eh, fu ñu nekk ci mbooloo. waxtaana yëpp mooy mu nga jëmale nit ñi ci dëgg ak njub mi nga xamal nit ñi ne suba dina ñëw te loolu eh, ku koy tàmm di def ci mbooloo wala ci waxtaan bu ne kooku daf fiy laaj dafay laaj mu dund fi lu bare bare bare bare parce que gars yi dañ koy tàmm di gis eh, ci ci télé yi wala ci rajo yi su dul télé ak ci rajo yi doo tàmm di dégg loolu ci ay jotaay moom nag tàmmoon na ko di ko def waaye xëy na lii ma nekk loo xam ne moo gën ci ñun gën ci moom dañu eh, fi dese moom mooy eh, di ko ñaanal boroom bi fa mu nekk nii yàlla nay noppaloo ci keppaaru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, di lancé gars yi tamit benn message leen wax ne imaam dem na ñu ñi fi des nañuy nemmeeku njabootam loolu rek moo fi des yàlla barka njaboot bi ñu nemmeeku la ñu màgg fekke yi tekki waaw ñu faraloon di gis ñëpp naan ko imam Mbissane euh, est-ce que nekkul rôle bu ñu ko doon jox la waaye wala imam la woon exactement. waaw xam nga ñun ñun artistes comédiens yi euh, du ñu jaay kenn su métier bi nekkee ci yow doo jay kenn te doo doo wax naka su dul noonu nit nag mën na jum mais askan bi xaaru ñun ñuy wax naka su dul noonu kon donc xam nañ suñu bopp bu baax. suñ demee ba di ko woowee imaam <laughs> parce que imaam la ustaas la imaam la day jàngale vraiment ñun fu ñu mus a nekk mu ñu jiite imaam la daal imaam la mën na sëkk waaw loolu la quoi donc ci nekkoon ci moom dañaa la nekkoon ci moom <laughs> voilà. da ngeen dafa feebaroon wala jotul am feebar ci ne bu nekkoon ci moom. waaw dafa feebaroon dafa feebaroon dafa feebaroon waaw. lan hmm. nga mujjee dégg ci avant muy feebar daal déggante nañ waaw donc man nag nekk ma fi woon ba mu ñëwee tamit aussi eh, dégg naa feebar na woo naa ko si safurlaa woo naa ko téléphone ñu waxtaan xam nga ñu waxtaan nice quoi vraiment fekk ma jëm dox si Taalin Sow ba tase ak benn eh, élément mu ne ma misaan temps yi passé ñu ñoo nekkoon tournage ma ak moom mu ma nit ku baax la xam nga wax ma wax ju rafet ci moom ma woo ko téléphone ba wax ak moom ci kanamu eh, kii boobu artiste boobu comédien boobu hmm. nit ku baax la ñëpp lay niimeeku ñëpp lay seeti kër yi foo ku ci nekk ngay foog ne Mbissane sa xarit la ñun ñëpp ah ci tegoon danaa la sama xarit la parce que ñëpp lay seeti voilà. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ko jaale aussi bu baax a baax. waaw aussi ñu leen koy jaale yéen tamit <laughs> euh, merci beaucoup. aja comme ni ma leen ko waxee rek ba tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndiaye ñoom tamit moom tamit ñu ràññee ko ci li nga xam ne moo di théâtre bu baax a baax a baax ñu gën koo xam ci madame Ngom euh, Ndeye Ndiaye nuyu naa la. yaa ngi ci jàmm. sant alhamdulilah. ba ñu la jaalee ki nga xamante ni moo di imaam nga bëggoon ñu bëggoon rek nga ñëwal ñu tuuti ci seen relation yéen ñaar naka la demee woon. Hmm, tey may wax ni bis bu gën a metti bis bi ci ñun amul. muy nit koo xam ne yàlla na ko alxuraan teeru. yàlla na ko Seydina Muhammad teeru teral ko. ku baax la ñu ñàkk tey ku sori suñu xol. boo imaam bisaan rek firndeel na tur bi ak jikko ji. muy koo xam ne ku nekk mën ngaa jàngat ci moom am royukaay ci moom ñu man Arko Pikine laa nekk ñu bokk fa nekk waaye lu fa xew ak ku mën di xewle bu dee ku ñuy takki mooy ñaani bu dee ku ñuy dajal mooy wàcce kaamili bu dee ku ñuy xewal tamit mooy dem tuddi kon Imam Bissane yàgg naa def lu baax tey nag bis bu gën a métti si lii ñun am man nag yàlla def na sax jot nañoo bokk sax ci série yi mais lu ma gën a marqué ci moom imaam dana digal di lay yedd imaam biñ ko tuddee dafa nekk ci moom dafa nekk ci moom amuñu leer lu ñu tiit ci moom ñun ñu fi nekk nañu xalaat suñu bopp waaye imaam suñu xel dal na ci moom suñu dal na ci moom. de dégg nañ bu bu baax a baax ñi nga xamante ne jot nañ leen a jël kàddu yi doon loo xamante ne lu rafet la bu heure jot julli jotaan imaam moo leen di jiite ngeen julli bu euh, delloo nit ñi ci yàlla jotee tamit moom moom moo koy def kan ngeen jàpp ne tey mooy remplacer imaam ci li nga xamante ni moo di seen groupe bi. waaw remplacer imam nag euh, dina yomb du yomb ndax arko ba lu nekk nga fa arko pikin lu nekk nga fa looy wut rek demal arko pikin dañ ko fa fekk waaye ku mel ni Mbissane ci disponibilité bi mu am yef gu mu am xaaru kenn wax ko bu waxtu julli jotee bala ñoo wax dal bu ni moom la ñu njëkk dégg bu noddee rek ñëpp jóg nañu su waxtu jotee arrêté nan comme li ma la ko waxee léegi rek dinañu manqué dinañu manqué ndax faal léegi ci du def te neewul ana bisaan ñaanal ñu door a commencé buy tëj dana ana bisaan ñaanal ñu door a tëj kon kooku bu jógee ci yow dina manqué ci yow pour ñu place ko dina métti na nit. ngeen gëj a déggante ak imam bisaan ak bi ngeen déggante yan kàddu yoo xamante ne ni na la la dénk. man nag du jóg sama kër ndax moo sama jëkkër Tapha Ngom ñooy ànd. à chaque fois mu ngi sama kër bi ma ko mujjee gis mooy guddi gi may féete sama troisième édition sama anniversaire may def mu ñëw yéen donc man ñaanal ma ni ma dafa am nag fu may dem waaye incha allah ma fa teelee jógee damay géey waaye dinaa ñëwaat boobu laa mu gisante ak moom. waxtaan ma moom nag moom boo ciy soo boo ciy wax chaque jour du jaaral ci yoon bu baax julliteel ci li mu nekk mbëgg la ci àtte ci loolu rek lay waxtaan ak yow. ñu la koy jaale baax ñu bokk lépp yal na ko yàlla teeroo àjjana fi daw si.